dafa min dama koo bal téye gis nga bi mu ñëwee. damaa dama ko wéeru quoi gis nga. waaw suñu yaram dafa presque compté. waaw mais lamb la nag ah. mais non tant champion. ay ndaanaan dafa toog di wax yow de. waaw presque ko noo noo dafa laa ko. leeral ko ba mu leer rek sportivement fii naan nga. daf maa fàq ma wéeru ko. mu rocceeku. ma teg 4 dama ciy sant yàlla baax nag. laajal ma ko. père dama entraîné. est ce ko du combat musuma ko ne bu ma juddoo ba tey est ce que du xam na loolu. gis naa gis naa loolu. jaam pexe yàlla dogalam. arène bi maa ngi fi doog am defet bi mu ubbee ba léegi. te ay doomu jàmbur laa fi doon daan. damay santaat yàlla sunu borom bu baax. damay santaat yàlla sunu borom bu baax. mais damay ñaaxaat waa Géejawaay. bu ñu amee ay ndaw yoo xam ne ay champion lañ. ay ah. faq tëdd lañ. ñu leen di taxaw parce que mbër dafa laaj jàppale te man deretu géejawaay laa uh-huh. man paala mi sama magu yaay la dëgg la su ma neexoon mun naa dem bootu ju Pikine dëgg la di ngem boo sama kër nijaay di génn di bëre ji dëgg la mais man sama papa géejawaay la dëkk nga la waay waa géejawaay nañuy génn di jàppale seen doom yi parce que ñun làmb la ñam te dañoo bëgg a làmb ban façon jàppale ngay sotti ci waa géejawaay jàppale père gis nga ñun géejawaay ndaw yi nekk géejawaay mënuñu da ngay am combat yaay teg jël sa avance jënd ci billet yaa leen di toggal lu ñuy lekk yaa leen di jëlal ay oto comme or que ni jàmm gën mel parcelle mel ko ñoom dañuy génn ak seen propre moyen am seen i nit ay kilifa yu leen di taxaw su boobaa mbër bi day stable day libre. waaw day mën a financer ci boppam day mën a def ci boppam li war day mën a teg ci boppam ay bonnes conditions ñaañu ma kenn nag mais boo amee sa doomu gox da nga koo war a jàppale ngelawaay. ndax ñun làmb la ñam te mbër buur la te mbër daa soxla jàppale may santaat yàlla di julli Yonent bi sama yaay ñaanal na ma ña ma daan ñaanal dem rete wuñ dañ ma daan ñaanal may daan damaa gëm na tey suñu borom moo àndul ak man waaw may ñaanal képp koo xam ne ñaanal nga Mbaye Diop safara ci kombaa bi yàlla na la suñu borom kattanal dooleel la di nuyu Mbaye Diop di nuyu ku mel ni Pape ba France jàpp na ci bolog yi Mbaye Diop démb jëndal na ma benn bolog ma koy sant di sant fameem démb këram laa reeree sax. mbay Diop mu ñaanal ma dama damal bëre waaw comme ñi ma war a taxaw ñëpp taxaw nañ ma. waaw maa ngi santaat yàlla maa ngi santaat yàlla maa ngi julli si yonent bi. waa di wax samay soppe nañ xam ne paa bi ma tegoon démb ak bërki démb tey moom laay reprendre raat parce que dama fee doon ñëw di daan ay doomu jàmbur muy neex. jërëjëf séntu ma woon lamb ji fii nag. merci beaucoup mais benn keesaa tamit aw lu may contesté arbitre mais gi bu ñu waree bërënte nañuy xool ñu ci ñu leen di làmb ŋàññu ma ñang baalu ci at ci ci euh, victoire bi ah maa ngi koy ñaanal yàlla sunu borom yàlla na ko ndam li jig maa ngi ñaanal yang baalo yàlla na ko yàlla jig yàlla na ko ndam li jig amiin waaw képp ku ma àndaloon gu ma ci stade maa ngi lay jégalu di la masawu waaw ñuy xam ne jaam pexe yàlla ak dogalam se sa prochain combat kañ ñu ko nat waaw sax defet dañ koy effacé ah noonu la demee maa ngi waajaa rek toog samay tànk ku ma sunu borom booleel may ñaan yàlla sunu borom dafal ma ci ndam parce que làmb dafa métti. ma lay jox benn conseil pour nga amaat combat mu gën a gaawee parce que nag daanaan mel na yow soo waxee ñëpp déglu la soo feccee ñëpp déglu la ngay dund làmb bokk ci xeetu làmb say nijaay yàgg ruufoo man muy Mbacke ba muy Galas muy Baba Diallo Bala Diop mii ñu ñëpp ay adversaire lañu woon bi ma koy sànq dama ne rakku Mbacke bu jigéen moo la jur dama amoon contentement ma ne yow doon nga bëre mais léegi nag yow bu subaa xëyal alburax nga fekk fa Baye Ndiaye ndax sa gala bii di ñëw dama caa bëgg bëri ndax doomu géejawaay laa nga effacé defet bi mën na ma tëggal sax mais père wax dëgg yàlla damaa damaa raf la woon adversaire ndax mbëri dañ ma doon moytu boo waxee ñu ne la ngeen léegi kenn la moytoot léegi gars yi ñëw nañ la xam nga di sant yàlla nag di nuyu Mansour Ba waaw waaw Mansour Ba démérité wul si làmb ji dëgg la def na li mu war a def conquérir naa ko ko contrat am. jàmbaar nga jàmbaar nga xam nga. signature naa ko. open press naa gën naa def ay sorties. parce que nit ki bu nekkee ndaw jël xaalisam fay la. waaw da nga war a mën a yooleel produit am pour nit ñi xam na kii kat am na lu muy waajal. jërëjëf waaw may yi xam nañ la gars yi xam nañ la xam nañ la xam nañ yaay kan xam nañ da ngay jaay nañ yan daanaan nga. père. père tey dama am. tëjël tëjël tëjël tëjël. père tey am mbetteel. ñu ko mbeteel noonu la nañ ci mbër saa boo gënee yaakaar ne ci ngay daan ci la ñuy daan loolu mooy defaraat nag. loolu un an la entraîné moo tax mu baax doole moo tax damay dolli sant yàlla. xëyee tegaat ko ci boo xëyee tegaat ko ci. may dolli sant yàlla di waxaat képp koo xamante ne nii soppee mbay jom nga. loo ko mën a jàppale si conseil ak ci xàllal ko wan ko yoon nga def ko te yàlla tax. premier pas ma siy jiital sama turandoo mbay jom. père man kilifa laa. maa ngi koy sama rakk jooju Mbaye Diop. père Pala to toog xam na li may wax. waaw waaw. père man dafa am ci dafa am ci famille bu ma bokk. boo xamante ne day ndeysaan xam nañ ko akkaar ci man. te dama ay mag te mënuñu. dama am ay mag te dinañ amaat occasion. fils attends attends dañ amaat oca dañ amaat occasion nga gën a yaatal. maa ngi jégalu dama ay mag te mënuñu su may jabaru mag nekk ci kër gi samay doom mag nekk ci kër gi xam nga may jaante gis tamit fi ñu ma teg di ma ñaanal. maa ngi lancé appel képp koo xamante ne nii soppee Mbaye Diop nga te gis nga buntu boo ko mën a ubbil pour mu teg pas dimbale ay famem ak ay waajuram nga def ko te yàlla tax wasalaam maa ngi sant ñëpp ak jërëjëf macha allah jërëjëf wax na soxlaam waaw wax na soxlaam liggéey am na solo ah, pour liggéey yàlla indi na président premier ministre boo xamante ne waaw xale yëpp woon am nañu yaakaar ñu bañ ko yàkkamti rek am métier yàlla yàlla moo tali xam nga temps yële ci ginnaaw. bu ñu toogaan fii balaa arbitre di siffler. Hmm. nga teg benn hymne. Sonko namm nañu la. waaw xam nga fan yi déggatoo ko. déedéet parce que li ñu ko nammee woon am nañu ko. jox nañ ko ko waaw. Diomaye ñu ne premier président bi gën a nekk xale fii ci Sénégal. doon opposition ñëw gagné premier tour. kon réew mi jox delloo nañu ko njukkal. macha allah président bu jóge opposition. gagné premier tour. sa réew wane nañu ni yow la. Ah, léegi nag xam nga lan ci des kenn ku ci nekk secteur ba nga ne nga jàppale ko ca. Ah, ku ci nekk ca la ngay yëngu nga jàppale ca jomaay ñoom it ñu jàppale ci nit ñi. mais am nañ miroir. ah ñoo am nañ seetu. dafa ne jeunesse sénégalaise. waaw la population sénégalaise am nañu miroir seen kanam. dëgg la am na ci quatre présidents yi fi jaar. waaw cinquième président doog a ñëw. Ablaye Ndiaye nga noonu daloon daaw daaw ñu daaw jéeg daaw ñu daawaati jéeg dootuñu dalati. dëgg ndax lu bees ñëw kon kay paalo ñun man ak yow ak sunu ak ñu mel ni ñun. waaw dañ jàppale suñuy doom gunge leen ñu dem vers le sommet. waaw ñun dañuy gunge rek. Hmm. Ablaye Ndiaye nga noonu ku jàppale suñuy doom ñun nga jàppale. kooku kan la. Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye Robert Ablaye Ndiaye benn Robert. bu Robert ah, ah, waaw ah moom war naa ngeen boot ah. waaw ah war naa jël la relève de son papa ah. ay ca ñu dem ci géebu waay Mohamed. liiru mi moom daanaka waaw ñi ñan la. Fadam Junior. Fadam Junior la ak Jaasi Pël moom Mamadi Ndiaye ngi noonu. waaw. di wax ak Sooru Fall. Sooru doo yor. ah loolu de am naa ci déng-déng. Jaasi Pël a ngi noonu. sumbe jun la joge Fadam Junior Géejawaay ak Jaasi Pël. jaasi de xam naa ne lu mu dal war naa dal. laa ilaa bëre na fekk dal faa bëre boo xam ne. yow xam nga jaasi pël. maa ko xam. day mel ni lañ set. maa ko xam te du ko sori nag. pël buy attaaya sax da koy da koy namm. pël kay daa mel ni lu waa moom da ko fee bàyyi rek pël. pël daal laay gis ku yor jaasi te dara du ko ci fekk. ah. pël day ko ci fekk. ah. day na war de. papa Gueye noonu. père. waaw am nga permis wala amoo ko permis am naa permi lan moo tax doo dawal sa bopp aadama ah, dama gëj a dawal looloo ma sonal demal nag eto école la péritante ah ñoom ñoom war nañ ma maa ngi am naa oto waaw am naa permis papa Gueye ko moom papa kon nag papa Gueye na ma formé waat papa Gueye ko moom ah papa suñu waay la de borom Elmour service papa Gueye da ngaa war a wax ak moom waaw waaw papa Gueye suñu waay la waxal moom ne ko père Palla nga gaare oto di fay chauffeur. waaw macha allah loolu am na solo ñu ngi nuyu Ibra Diouf Mewane production. ah Mewane production. nee na mi ngi koy seetaan depuis Mewane. waaw kooku nag suñu doom la suñu xarit la. Mewane production. waaw ah, xale promoteur boobu da koy seetaan suñu xarit la. da nga koy seetaan wala da nga koy déglu ci rajo bi. na leer nag da ngaa jënd ko seetaan. Ah, waaw wala da nga koy déglu ci rajo bi. lu ci ne mën naa ne de. kooku mooy. Euh, Ousseynou Laye production. waaw. moom aussi mu war a ñëw la le 18. Ousseynou Laye xale bu baax. diggante Mbacke Faye. waaw. ak Rëm. tëgg na combat bu rëy. waaw moom Ousseynou Laye moo ko tëgg tëgg na lamb ju rëy rëy mu war a am samedi 18 mai. moo tëgg loolu. mais kii toogu woon fi diggoon ma benn combat. an kay. toogoon nga fi digg ma combat de lu fa ki toll ma commencé foofu. incha allah sama troisième journée perte incha allah ah na nga ko defee jour bi kañ la. daga sa baaram ñu dem ci combat bi. ñu dem ci combat bi ñëwaat kon. Diassy Peulh ak Fadam Senior. Diassy Peulh moo ñu moo ñu ñun. moo wan ginnaaw. moo ñu wan ginnaaw wet. bëre woon fi ak Talfa dóor ku dóor yu méttee méttee méttee. ak Talfa mii. waaw. Diassy Peulh wane ginnaaw jiital tànk càmb ñoom. waaw ka ci topp tudd naka. Fadam Senior.